وصل للحق من الحق المبين لي خادم بان وما ليس يبين وصل للحق من الحق المبين لي خادم بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق man kaana lii bi karamin wa tilxi lam yenu saati jaalibu niiraani aw jaalibul xaarayni wal xusraani lam yanhu ni dararu naari dunya waxtasanil baaxi bi xayri sunya malakani maalam yabi waxanni waxaadili baqaaho بالمن كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان مصنفاني مال مماتا مهل مماتا خنها نفوسا ولسواي ساخه تنفيسا إلا سوان وانتهاء الموت نهى النفوس كلها بفوتي لم تنهني مخدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي موت الذين كابدوني بدل من موت نفسي ما نهاني جدلو tursi anil mawti baqaa'ullaahi abxaani allahu li wajillaahi kafaani albaaxi mamaata sarmada wa bi baqaa'iya yasurru ahmada nafaani walam yadruni wala yadruni kulla alayhi wala tursi anil amraadi wal mamaati baqaa'u aasimi min asamaati علمني بخوله إليا البيت رافعا بي المرديا لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب واللمين لا شك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب واللمين déglul ma wax la keroog ba Cheikh Ibra Mbàkkeem Sëriñ Tuuba ñëwee Gabon ngir topp jéegooy Sayxu Bàmba ba mu nee fa cëpp ñu won ka magum sàndarma mu tudd Sàmba Njaay mu won ka réew ma Masamba Njaay naa sa njibra lépp fi la ma fekk maag Seyxu Bamba diggante posulo di ma balambar na musunu fee tàggoo ba duudu merenu Masamba Njaay naa sa ñibra dikkal ma won la téeméeri góor yan sànki woon ak ñeen fukk seen mbubb yaa nga ne yow sa baay mooy pànk Masamba Njaay naa sa woon ak ñeen fukk seen sa baay mooy pànk bisub keroog la ko naa yow sa baay sàndarma ak soldaar sa xëy nañ di ko joor sox ya di tàkk ba ca waxtu yoor yoor ba pënd ba wuree ñu séen ko mu muuruy bind làbbee naa ko bàmba yaa ngi dund bisub keroog la ko naa dikkal ma won la teen bu bàmba bënn ngir mar muy bal mel ni meew te dàq suukër seex bàmba xëy na yorug sotalaam suba ba ngoon naanul di bëgg a jàpp julli waxtu tàkkusaan ay bàllay sa garde ya naa ko doo fi jàpp doo fi naan keroog la wàqi dañ ndox ma muy ball ferul ba tey jaaraama sibtu balla bisub keroog la ko naa dikkal ma woon la labbee forom bañ leen wooloo ngir jaaxle te wax la seen limba ñee di labbey farañse ñee di labbey angale ak i nation ku nekk wax bàggale ku nekk génne woon na say xeram ak say nattu taxul Seex Bamba fàtte waxtu nattu ya di ñaari téeméer yu teg juróom ñett fukk ak juróom wóor loolaa di mu aayay baqara te natt bu ci rekk rey na téeméeri góor yu xare Cheikh Bamba nee na Cheikh Bamba nee na Cheikh Bamba na Cheikh Bamba na Cheikh Bamba nee na teg nañ ma nattu yépp ak balaaya te mës la te ma xëy di jàng laaya bisu keroog la ko naa dikkal ma woon la fa sa baay daa toog di tagg njool màkk réew maa ngi koy siyaare leerey jolli bisub keroog la ko naa dikkal ma woon la fa sa baay daa toog di tagg njool màkka réew maa ngi koy siyaare leerey jolli sëriñ tuubaa i taxa taxtil mu taxaw suy waaxu te taxti koo taxaw lu wéy la baaxoo komba nangak alkaati yey commandé ay ballay sa xàmmewuleen ku wax mu teg ca waande jërëgéen